ànd ak yow protéger la projet comme ni ñu ko defee nii ngir ndam lu rëy bu rëy rëy sax ñu mën ko am ci réewum Sénégal dema dema dem ba réew mii ñu koy comparé ak yeneen réew yu développé ci àdduna bi dema dema dem ba waa diaspora bi ñibbisiwaat investir indaale seeni koppar réew mi gën a naat gën a suqaliku te loolee kenn lañ ci wóolu mu di Ousmane Sonko Fadilou Keita itam ñu koy félicité ndax liggéey bu am solo bi nga xam ne baatar na ko moom mi nekkoon directeur de campagne nekk DG itam teeku jaayante ko ba ndam lu rëy li ñu daal di koy am AGT News jërë ngeen jëf mbok yi ci ànd beeg ñun ci AGT News daleen ak jàmm jamono ji ñu toll nag def nañ élection législative ba noppi maanaam fal nañu suñu ay député ñu war a teewal ci pencum ndawi réew ma yentoo dinañ ko xam officiellement kenn ku ci nekk ñu génneel la nombre de député bi nga xam ni war nga ko mën am waaye ki nga xam ni moo di professeur Mamadou Yok am na ay projection yoo xam ne def na ko ci ñeel yi la jongante yooyu nga xam ne sax sénégalais yi au départ foogoon nañu dañu génn dem voté ji ndax kat tendance bi dafa faibloon lool taux participation bi wàccoon bu baax a baax waaye ndekete sénégalais yi dañ doon jël seen temps après benn benn tàmbali dem ci bureau de vote ya tànn xam ni ñoo ñu war a teewal ca pencum ndawi réew ma naka noonee nag ci leen gis ne Pastef bu Ousmane Sonko dafa duma gaay duma yu méttee métti loola ba projection yi nga xam ne professeur Mamadou yoog defandi na ko li mu wane moo nekk nii Pastef bu Ousmane Sonko am cent 131 députés takku wàllu bu Macky Sall 16 jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba am ci sept coalition sàmm sa kàddu bu waa PUR Barthélémy Dias Pape Djibril ak ñeneen ñi ñëpp am ñetti député dong ci des benn la ñu am muy les nationalistes bi nga xam ne tey Roussard moo koy jiite am na benn Sénégal kese benn soppi Sénégal am benn naataange benn ànd si kóolute am na benn ànd beesal Sénégal itam am na benn ba mu des ànd nawle mi am ñaar loolu mooy projection yi nga xam ni professeur Mamadou Diop def na ko ñuy xaarandi résultat officiel yi ngir mën a xam dëggantaan kan ak kan moo nar a am officiellement siège foofee ci biir assemblée ba waaye itam ngir mën a confirmer lii nga xam ni professeur defandi na ko muy liggéey bu am solo buy wane pour la moment que ni Pastef moom am na une majorité écrasante lii mu député bi mu nar a am ci biir ba lu confortable la liggéeyam président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le PM Sonko ñu nar a ci liggéey jëmale ko ci li nga xam ni mooy référentiel Sénégal vision muy lu am solo lu askanu yëpp di xaar am ci nag yaakaar bu baax a baax ndax kii di Ousmane Sonko moom la campagne dem ci pôle bu nekk wax leen lan mooy vision bi ak lañ leen fas defal yëg diir boobu nga xam ne Sénégal coppite gu rëy rëy mën nañ ko cee gis kon gars yi mooy mbir mi nañu xaarandi ngir xam fan la wànnente a wóor abonné leen ngir dara bañ leen cee raw News